waa sama gars yi bu leen fàtte Alphie shopping bi nag waaw këy sama gaay yi waa seetal ma yooyu xeetu euh, mëgg waaw jënd leen xoolal ma yooyu pull yu baax ak yooyu t yu baax tablier yi bu leen ko fàtte peluche yaa ngi alfi shopping waa nag euh, ci kaw ni ngeen di commenter da ngeen di cliquer ci lien bi dugg Alphie shopping def seen achat jàppale nag Alphie cuisine sama gars waaw këñ Alphie cuisine ak alfi shopping waa ñu dem sama gars yi asalaamaaleykum wasalaamaaleykum waa waa na ngeen def nag sama gars yi nuyu naa leen ziar naa leen de waa soos a ngoog yii nañu soos ma wan leen du may defaree sama soosu légume boo xamante ni neex na ci couscous neex na ci vermicelle dégg nga maam neex na ci sandis ko ci mburu mi hmm? neex na ci lekk ko noonu kase neex na ci boole kook sa tuuti omelette ah wala sax nga defar sa ay brochette lakk sa ay merguez defar sa ay sa ay steak boole kook euh, soos bu nga xamante ni mi nga xaw a nduróog ratatouille waaw légumes yaa ngi tege euh, tey comme am nañ tuuti naaj waaw légumes euh, yu yu coloré sax yoo xamante ne tarkal la boo ko gisee sa sa sa xel dafay dem ci ci ratatouille sa xel dafay dem ci ci ci ci sauce sauce bu neex daal boo xamante ne bëri na vitamine ndax légumes yi ciy dem bëri na waaw am naa fi carotte am fi euh, poivron rouge poivron vert am fi courgette am fi aubergine ak blette Bleta bi nag euh, dañ ko romb Villanova mu bëri fa loolu euh, japonais yi di ko faral di ko utiliser di ko def ci seen ay soupe ramen waaw mu neex torop ci sauté de légumes yi euh, moom kase rek boo ko daggatee sauté ko dafa neex boo ko defee sa sa soupe dafay dafay neex ba pare dafay xaw a saf nee naa la bëggëj xaw a saf épinard Euh, am ay ferñeent yu baax sunu yaram waaw genre régime bii nag genre recette bii nag euh, maa ngi koy dédicacé sama maman yi nga xamante ne dañuy bëgg Alphie Cuisine di defar ay recettes ay recettes diététiques waaw ku ci mel ni sama yaay euh, genre sauce bi nga def ci sa huile d'olive ba mu saf sàpp wàññi tuuti bouillon wàññi tuuti épices yi sauce bu neex la sauce bu vitaminé sauce boo xamante ne la yaa def si lekk waaw mag yi mën nañ ci dóor ba dem ba jeex ba pare dafay changer sunu ay soosu soble waaw yi nga xamante ni euh, dañ koy faral di defar waaw carotte laa njëkk daggat poivron rouge poivron vert waaw ñoom ñetti laay boole euh, ak euh, berenxena bi muy aubergine bi daal di leen def ci benn saladier parce que ñoom mën nañu bokk temps cuisson waaw ñoom ñoo bokk groupe waaw ñoom ñii nii nii ma lim nii mën nañu bokk group waaw nañ leen boole ci benn saladier waaw kon ñu tase daal di def seen connaissance waaw carotte bi nuyook poivron rouge bi poivron rouge bi daal di wax ak poivron vert bi waaw wax ko ay euh, différence am waaw Chara Chara sama doom bi mi ngi ma doon laaj différence entre poivron yi bokkuñu saveur bokkuñu saveur dinañu ñëw spécialement ci légumes yi bu ci nekk euh, lan lay jëriñ buñ ko lekkee lan la ñuy am. Euh, ak euh, lu tax suñ demee marché ñuy tànd yenn yi duñ tànd yeneen yi waaw kañ légumes yeeg fruits yi nag te euh, xam leen ni luñ ci lekk doyul waaw surtout sunu maman yi nga xamante ni dañu war a di consommer fruits ak légumes bu doy fruits ak légume bu bëri ça j'insiste dama ciy insister waaw sunu maman yi nañu wàññi ceeb beeg ndawal ndawal bu xonq bi waaw nañuy lekk ci fruits yeeg légumes yi di naan ndox bu bëri man moom laay wax sama maman. waaw kañ courgette baa ngi noonu courgette bi ak blette bi ñoom ñoo bokk groupe parce Euh, ñoom bu ma njëkkee sa togg première groupe bi ñoom deuxième en deuxième partie la ñuy dugg waaw ñoom deuxième deuxième mi la ñuy dugg waaw ñoom du ñu démarrer match bi ok léegi nañ ko daggat def ko en cube brunoise ma ngi may rappeler ociopatas ndeysaan boo ñëwee rek chef ba ne la jëlal légumes yi te daggat waaye yàlla baax na waaye yëpp dañ ciy jaar surtout ñi nga xamante ni ñoo nekk ci restauration bi euh, xam ngeen ni découpe yi brunoise euh, wala en lamelle yii da nga koy faral di di def lu bëri ci ñi nga xamante ni ñooy yor euh, cuisine surtout ñi nekk ci restauration bi ñi nekk ci service traiteur yi c'est très très important étape yi nga xamante ni moom mooy def mooy démarrer euh, toujours service restauration bi waaw koy découpage raxas rangé waaw yii dañ koy faral di gis mi ngoog léegi nag euh, aubergine bi hmm, poivron rouge carotte ak poivron vert ak soble waaw soble bi ñëwul mais am na soble ñoom laay njëkk a dóor waaw koy daal leen fay bàyyi di leen yëngal pendant 15 minutes assaisonné ko ba mu saf def sa xorom def sa pimento rojo muy euh, paprika waaw paprika fume def sa euh, beneen ba waay origano waaw herbe de province duma ko fàtte fan yi dama bàyyi ori herbe de province dugg ci origan waaw kay nga def sa poobar waaw defe naa laa def ci épice waaw koy su ko defee nga daal di ko fay bàyyi bu la neexee mën nga tibb benn kuddu nokkos dóor ci waaw tibbal sa benn kuddu nokkos dóor ci mu gën a saf après nag fin ba ma wan la yi ma ciy dolli waaw koñ yooyu ay astuce su Alphie Cuisine ay wa ñu nuyoo sama gaay yi groupe dédicace bi nga xam ne ñoo ñëw tey Binta Cili Cili Thiam ak Caroline euh, Bigane est-ce que naa ko wax naa ko bu baax Awa Gueye waaw sama ñetti ñooñu ay abonné yu bees lañu ana abonné yu bees yi da ngeen di dugg bu fekkee abonné bu bees ngeen da ngeen di bàyyi seen commentaire waaw kañ su ko defee Alphie Cuisine daal di jël seen tur jàllale leen ci dédicace yi waaw sinon Nabou Thiam euh, elle est là Khady euh, Gassama euh, Kardash waaw présidente Euh, Tim Christian euh, Jojo Ndoy mi ngi fi Sarah Gueye waaw koy meilleur Sarah ma meilleur waaw moom nee na Alphie dafa meilleur Ramata Sow Ndey Ndak Gueye waaw moom service traiteur la yor euh, Bintu Ndaw Anta Mbuub Mbuub sama waaja waaw moom ca groupe fidélité bi la bokk de Oumou Sall ñi ngoog tey euh, ñooñu laay yàkkal mais nag euh, sama gaay yi comme ni ma ko waxee rek xam nga commentaire yi dafay bëri xam nga 300 commentaires doo mën a def 300 tours yëpp di ko di ko lim xanaa nag ma <laughs> ma def spécial dédicace rek du ma wax recette bi lu dul di di lim rek sama gars yi waaye nag euh, jaral ngeen ma ko de waaw waaw ki bàyyi léppam daal di def passe internet am dugg ci Alphie Cuisine tàppe Alphie Cuisine toog di ma seetaan ah jaral nga ma lu ne maa la wax lii. wax leen borom boutique yi ma ni ak jaaykatu légumes yi jaaykatu ndawal yeeg jaaykatu ginaar yi ñu abone Alphie Cuisine waaw di seetaan ah da ciy baax de. gis ngeen deuxième deuxième round bi dugg nañu noonu muy euh, bled bi ak euh, courgette sauce soja moo koy ñëw fekk si noonu ak sauce huître waaw kay yooyu mooy astuce bi nga xamante ni ñooy def gu ci sauce bi waaw dóor ci sa sauce huître mu xaw a saf mu xaw a saf euh, ndoxu géej. waaw kay bu ko defee nga daal di koy soos soja waaw yëngalal amal tuuti soos nag amal tuuti ñeex moment bi mën nga jël sa couscous tay ko ba mu ba mu ba mu wesaŋ nga suur ko ak ak euh, ak sauce légume bi mu jox la couscous cantonné maa la wax lii noo mën nga jël sa vermicelle tay ko ba mu ñor ah, def sa resin soor ko tamit ci sauce ci soos bi lu baax ngay am maa la wax lii buy lii boo ko yàkkee du soxla ngay defar soos soble. fi ne nii da nga yàq sa vermicelle wala sa couscous rek jëlal sa ay euh, ginaar yoo saaf sa ay lapin yoo saaf wala sa ay kanaar yoo retour rek daal di daal di yàq sama gars yi non ma de jeex na euh, di leen jaajëfal rek bu leen fàttee di abonné wu et puis di yokku euh, commentaire rek sama gaay yi on se donne rendez-vous très bientôt maa fi jaaroon def bu sew bi mooy vite fait bien fait na fa woon Alphie Cuisine jaajëfal naa leen sama gars on se donne rendez-vous Euh, très très bientôt pour une toute nouvelle recette ma leen di jaajëfal di leen remercier ci fidélité bi ak ci participation bi merci beaucoup. waa sama gars bu leen fàtte alfi shopping bi nag waaw kay sama gaay yi waaw seetal ma yooyu xeetu euh, mëg waaw jënd leen xoolal ma yooyu pull yu baax ak yooyu t yu baax tablier yi bu leen ko fàtte peluche yaa ngi Alphie shopping. waa nag euh, ci kaw ni ngeen di commenter da ngeen di cliquer ci lien bi dugg Alphie shopping def seen achat jàppale nag Alphie cuisine sama gars yi waaw këñ Alphie cuisine ak Alphie shopping waa ñu dem sama gaay